fi Mbàkke la ñoom ñoo wode seen bopp ci yile anam la ñuy daal di dalal caravane bu candidat bi di sëriñ Mboup ci guddik weeru koor gile Serigne Mboup moom mooy buur fii ci Mbàkke xar kanam bu yanjam bi ak ay muuñam daldi di firndeel mbégte bi mu am ci kaw oto bile mu taxaw ànd ci nag ak ki nga xamante ne moom moo ko fi teewal jigéen ju mën góor Serigne Mboup daal di xamle ne. dañuy fexe ba ay usine développé ba transport bi développé ba ñu fexe ba nga xam ne ay gaar yu bees tax mooy am ñu wàññi moto jakarta yi fexe ba wuta leen ko remplacer leen ko ay oto ñu defar tamit mbay mi ba ngeen mën bay bu baax. ku bëgg a defar Sénégal da ngay toppatoo diaspora bi 1700 milliards lañ ciy dugal officiel day am agence boo xam ne nii day toppatoo retouru diaspora bi leen ba nga xamee ne nii xaalis bi ñuy indi bu ñëw mu nax sa kan nag ñuy delluwaat dañuy mën a toog définitivement jabal seeni rek ñu mën a dem installé ay usine de consommation usine de ci pôle régional yi mooy Touba Mbacké ak région de Bawal def ko Sine Saloum gannaaw Daaru Muxti nga xam ne daanaka foofu la daal di def ba sub dibeer gile ci suba si yëpp. def ay tukkib nemmeeku. xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay kilifa yi saafonte ak ñoom dem tamit ci marché central ba waxtaan ak jigéen yi gannaaw loole dem na ca bay nga xamante ni bërëb bu sel bi nga xamante ni kii di maam nu Mbacke Birahim ñu def fi nag ay ñaan ñaan yoo xamante ni daanaka lenn rek la mooy ba bésub ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu nekk maanaam dibeer bi ñu dëgmal ñu fal ko juróomeeru njiit ci biir réew bu Sénégal gannaaw bi ñu ndogee ba pare Serigne Mboup wutali ca Mbacke Mbacke nag jamono ji yëkkati nañu mbir bi ca kaw gannaaw bi ñu dooree campagne électorale bi lay foofee ca Kaolack ba tey laata ñuy jëm ci yeneen diwaan tàmbale ko nag ci altine bile